5M TV mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal nag jàmm Kalifone sàll mooy nit koo xam ne ay waxam du féete fenn su ko neexee mu génn di tagg Serigne Ousmane Sonko di xas président sàll su ko neexee muy tagg président sàll di xas Serigne usmaan Sonko loole nag nekk loo xam ne nit ku koy def rek jàppal na say wax daal amul benn njariñ parce que saa soo waxee rek ñu jàpp ne yow. li ngay wax intérêt moo tax nga koy wax te loolee nag moo dal ki nga xam ne moo di Khalifa Sall Khalifa Sall gisoon nañ ko muy tagg ki nga xam ne moo di président Sall ba sax di def ak moom sinap jamono jii ñu gis ko mu yëkkati ay kàddu di ko jëme ci moom ba sax am na ñenn si ñoo xam ne ñu ngi jàpp ni daal Khalifa Sall mii daal maanaam président Sall daf koo tooñ waaye nag loole lépp daal ñu bëri daal ci Sénégal yi rek ñu ngi wax ne Khalifa Sall daal paaka ñaari boor la fu ko neex rek far fu ko neex dem loolee nag ñu bari ci Sénégal yi ñu ngi koy wax di wax ne daal Kaliphone Sall nitu intérêt la ay waxam intérêt la moom mi nag di Kaliphone Sall ginnaaw bi nga xam ne daal fan yi dañ ko téye woon ci kaso bi ci digganteem ay problème yi amoon ci Adja Thiara Diaw bi mu génnee nag muy def ay live eh, di attaqué ki nga xam ne moo di président Sall nañu teewlu kàddu yi nga xam ne mi ngi ko yëkkati di ko jëmee ci ki nga xam ne daal moo di président Sall. message doo ma ko fa yóbbuwoon musul laal Sonko dina dem wuy ji. mais xam nañu nërmelu na ba mu nërmeloo gars yi dem génnee si awra aji saar jël sperme bi aspiré ko def ko si ab boîte Sonko moo leen gën a xam Sonko bëri wax Sonko jàng Sonko am xaalis aji saar tekkiwul fara amul lu mu lekk. xale mbokk yi ñoo déggandoo kàddu yi nga xam ne Khaliphone Sall jamono ji mi ngi koy yëkkati di ko jëmee ci ki nga xam daal euh, moo di président Sall loolu nag du bett kenn parce que moom à chaque fois moom muy génn rek di xas ki nga xam ne daal euh, moo di Serigne Ousmane Sonko di ko wax ay kàddu yu ñaaw kàddu yoo xam ne ku ko dégg rek dara sa gémmiñ loolu nag instant bi nag moom daan na ci génn ba sit wicci di tagg ki nga xam ne daal moo di Serigne Ousmane Sonko moom mii di Khalifa Sall daal jàpp nañu instant bi nag waxam daal amul benn njëriñ parce que nag waxam daal ëllëg moo génnaat waxaat leneen lu bokk rek la moo waxoon ëllëg voilà kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah ci Sénégal jaa jëf ci ànd beeg 5 Sénégal ngeen wéy di abonné di partager vidéo yi jëf ci topp gi ak fii Sénégal